léegi pourquoi ma ne dañu leen évincé yeewi nga ne d' accord aussi dañu leen évincé si on nous a ñu leen évincé wu lan lañ leen. lan mooy évincé dañ def communiqué dàqaleen. lan mooy évincé. dañ def communiqué dàqaleen. dàquñu lu mu wax. waaw la wax communiqué bi. koy lu mu wax leer na xam nga ko xam naa ko. non non non communiqué dafa dañuy acter la fin du compagnonnage. du évincé lan la communiqué bi moo ko bind ah kan moo ko bind kan moo ko signé may mun a yow tey pourquoi ki ko bind ak ki ko signé am importance yow da nga am télé waaw ah. nga nekk directrice générale am ay administration di liggéey ak ñoom fii ngeen di jël ay note service ngeen di bind lépp lu ñu ci bind xam nga fu mu jógee ak moo ko def il faut qu'on soit sérieux tax Yewwi Askan mu mënul am conférence des leaders am président de la conférence des leaders mu am une décision aussi importante danga ko jël ñu gis un communiqué de manière ñu ngi ko waxee sax laconique sans signature ne acté nañu que euh, fin du combat état wu Sénégal kenn mënu la wax kenn moo ko bind est-ce que du fake news. fake si. Girassi toog na fii. oui qu'est-ce qu'il a dit Girassi. nee na hmm? le départ de de de de de, de du mouvement taxawu Sénégal de yeewu askan bi c'est une bonne chose ça va permettre de mieux lire dina leeral mbir mi. et yeewi askan bi ni ñuy comporté woo booleetuñu leen ci dara. waaw loolu la expliqué xam nga dama la expliqué dama ne la. et jusqu'à présent amul ku taxaw. oui de a de communiquer dans Yewwi Askan Wi euh, à l'époque dans l'affaire Barthélémy Diaz euh, Soham Wardini voilà ñu naan communiqué bi kan moo ko bind. mais jusqu'à preuve du contraire waa Yewwi Askan Wi dañoo acté le départ de Taxawu Sénégal amul ku taxaw ne communiqué bi c'est un fake news. et la vie continue pour man Ah. ma defoon léegi ma bind communiqué ñu ko yëb askan bi dama jox exemple rek c'est la suite la plus facile c'est-à-dire amul cachet bu mun boo mun taw non dama la ma rek entête bi am entête entête amul non kaay la ba a xamal et puis une large diffusion nit da ngay am nit da ngay am tenue ak retenue nous sommes tous des responsables fii xalaa mu fi nous sommes des politiques Yewwi Askan bi ñun dañ ci am luñ ci liggéey ak ak ak ak luñ ci def bañ koy sos ñun ñu ngi ci woon tu comprends dama ne la man bu fekkonte ne ñoom grâce yi ñoo ña fa nekk bind nañu ñoom ku nekk signé parce que ba ñuy def Yewwi Askan bi dañoo signé ku nekk bind signé à main levée ce document là ñun ñoo ko yor taxaw Sénégal ñoo ko yor nous avons le document dans lequel tous les gens ont signé bu fekkee dañuy dàq ñoom dañ am courage signé ko muy benn deuxième bi à quoi sert le président de Yewwi Askan Wi à quoi sert le président de Yewwi Askan Wi. le président de la conférence oui. des leaders. mais kooku moom bu fekkee mooy président de la conférence des décision aussi importante war na non seulement signé ko moom mais communiqué ci wax ko ak Sénégalais yi ñu def conférence de presse mu toog moom ànd ak président lan mooy rôle donc aujourd'hui le problème de c'est un problème de management le président Habib Sy bi ñu ko jox moom moo ko attanul moo ko mënul téye moo ko mënul gérer ba tax léegi nag lu neex waay def parce que Habib Sy bu dee mooy président yow askan bi ñu am problème ak taxawu Sénégal xam nga lu ma ko def au plan politique en tant que président convoqué Khalifa Sall ñu ko kaay lii ak lii mooy problème bi ñu waxtaan si ça c'est au plan politique mais au plan personnel Habib Sy mais Khalifa Sall moo ko indi yëbi affaire bi moo seeti ba këram wax ak moom man maa ngi ko maa maa ngi moom ñu àndoon moo ko yeewi indi yeewi askan bi bu fekkente ne Habib Sy li mu wax dëgg la que Ousmane Sonko moo ne ko kaay nekk suñu Amath Dansokho kaay nga magal nekk ci Amath Dansokho mais dafa wax dafa wax agir comme Amath Dansokho xam nga Amath Dansokho mën def hmm? ñaar. Mm-hmm. Amath Dansokho dañ wax dëgg. tu comprends. ñaareel bi bu amee coow mu jubale nit ñi donc Habib Sy rien que ces moo Khalifa Sall seen diggante ni mu rattaxee ñu nekk ay xarit démb tey doog a ñëw moom bu amee tey lu métti ci biir askan bi war na seet Khalifa Sall wax ak moom. war na fexe ba jàmm am yow. askan bi mais warul toog euh, def li si xam nga tous les communiqués de Yewwi Askan Wi. Mhm. dafay am le cachet de Yewwi Askan Wi la dat euh, ak la conférence des leaders mm-hmm. euh, communiqué bi nga xam ne moom moo acté la rupture avec Yewwi loolu la am mm-hmm. ah? mm-hmm. su ma jëlee yeneen communiqué yoo xam ne Yewwi Askan bi def na ko c'est la c'est la c'est le même prototype oui. donc pour man da ngeen di guddal jéel la. mais xam xam nga nekk fi di naan kan moo signé. par exemple je prends ce communiqué là de Yewwi Askan Wi nous avons suivi avec stupéfaction la sortie de madame Mimi Touré qui non seulement viole la loi en proclamant la victoire de Benno Bokk Yaakaar dans certains départements mais se présente en porte-parole du président Macky Sall ça c'était le 31 juillet 2022 et c'est le même prototype alors c'est la date euh, la conférence des leaders et le cachet de de de, Askan Wi donc c'est quoi la différence la bu communiqué bii mu ne authentique communiqué bi nga xam ne yéen yéen a ngi woon ci biir lan moo tax communiqué bi acté la la rupture avec euh, Taxawu Sénégal pourquoi nga bëgg a xalaat ne ça manque d'authenticité mooy différence bi waaw la mooy différence daal ma wax la bu nga dégg ko waaw parce que Yewwi Askan bi le mode de prise de décision c'est le consensus ce communiqué yi nga xam ni mais c'est signé par la conférence des leaders ma wax la et ce sont tous ma wax la communiqué yi askan bi yiy génn yëpp avant ñu koy valider ñun dañ ciy liggéey c'est-à-dire chaque leader ñoom bu ñuy def communiqué il faut une conférence call kon ki benn projet bi da koy envoyé leader yi et chaque leader envoie à ses gens ñu liggéey ci. tu comprends bu ñëpp validé ba ñëpp validé lañ koy doog a génne ba loolu. cest à dañ koy bind projet bi mu sur dañ ko circulariser non ma ñëw dama la rek dama la wax moo am c'est-à-dire nga gëm ak ñàkk gëm moo am

nekk euh, président communauté leader. yéen a ko ko sant c'était une stratégie politique. no xam nga dama lay expliquer parce que may mën na il faut que ñuy dellu ci fondamentaux yi Yewwi Askan bi fu mu jógee Khalifa Sall ba mu génnee président en 2019 ba fàttali ko dafa def tour tous les leaders politiques de leen pour remercier leen mais foofu fu ñu dem lay remercier sa taxawaay ñu ngi ko jàppale mais danaa la ñu pour mën a taxawal coalition tu comprends loolu mooy les premiers balbutiements mu génne prison bi nga xamante ne projet bi jël na forme muy taxaw moom moo ko dox ak Ousmane Sonko ñu nekk ci di liggéey man miy wax ak yow le 8 août 2021 laa dem kër Ousmane Sonko ak si à 18 moom mu nekk fa ak Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy nuyu di ko masawu li ko dal moom ak Ousmane yëpp. ma ànd ak Cheikh Gueye ak Saliou Sarr ñun cinq yooyu ñoo réunion wax ci projet coalition bi wax ci deadline yi man ak Bassirou ak Saliou Sarr ñoo def le premier draft zéro bu jóg charte bi nii donc xam nañu fi ñu jógee ak liñ ci wax ak li li li wundu yeewu askan bi yeewu askan bi trois phases la amoon mooy élection locale dem ensemble élection législative dem ensemble bu ñu ci génnee présidentielle bi ku nekk demal sa bopp avec la promesse te bu ñu demee deuxième tour kii dem ñu jàppale ko loolu mooy les trois phases yi amoon ci Yewwi Askan bi ñu ànd ci bu njëkk bi local yi mu métti yàlla suturaal yi amoon ay jafe-jafe foofu sax mun naa ci dellu si mais ñu ñëwaat législative mu métti yàlla suturaal ñu ñu jàll ci boobu bi ñu génnee législative le premier membre de Yewwi Askan Wi à avoir pris la parole pour ne moom candidat la à la présidentielle Ousmane Sonko dañu génn rek ci élection bi mu def point de presse au nom de Pastef ne moom il est candidat à la présidentielle il va faire son nemmeeku tour muy droit am parce que ku nekk ay demal sa bopp ñu dawal diir Khalifa ne moom aussi day nekk candidat dafay def son mottali yéene mu ne leen man mënatuma téye coalition bi ndax damay dem ci àll bi campagne damay dem vraiment ci biir biir Sénégal seeti Sénégal yi wax nañ ñoom donc dama bëggoon ñu déchargé ma ci présidence su Yewwi Askan bi biñ ci waxtaanee dañu modifier charte bi parce que la charte initiale yaa ko taxawu Pastef et PUR ñoom doon nekk président conférence des leaders amoon na sax droit de veto ñoom ñett ñooñu ci adhésion yi kuy dugg si ñu xool ndax da nga war a dugg wala war a dugg donc dañu modifier charte bi pour que Habib Sy mun nekk président bi parce que Habib si moom boobu temps amul benn ambition du candidat présidentiel donc moom amuloon ambition Ousmane Sonko ne ko ñëwal nekk suñu amal daan soxla magal ñu mu nangu ko moom donc loolu moo tax Habib si nekk président coalition Yewwi Askan bi ma jàpp ne mais mun a bu ñu la wooyee di la kaay yaay mag yaa gën a sage nga ñëw nga ñu ànd mais lu am ci jafe dañ ko war a waxtaanee. parce que rafetul jekkul naan dàq nañ ki génne nañ kii mais Habib Sy rôle am rôle président xam nga pour man mooy lan. da ngeen bëggoon ñu ñu auditionné leen. non non non dama ne. entendre leen non non dama ne rôle président. waaw ah. da nga war a fexe ku nga njaboot la famille la.